lépp ah, lépp différence bu mag. bu njëkk euh, fii ñu taxaw nii. mënoon ngaa sol sa yére yu bees pour ñëw fi ja jaaxaan fi heure bu la nga dem du tàq du def dara c'était l'une des plus belles plages. ci àddina waxuma sax Afrique mais ci àddina tey jii gis nga ni mu mel li ko indi mooy pollution pollution industrielle d'abord pollution ménagère aussi parce que nit moom da ngay wax te yàlla tax wàllum pêche bi fii ñu taxaw danga daan taxaw fii fii ay jën di fi di fi di nga gis seen jën yi sani mbaal laaw jàpp lu la neex tey jii balaa ngay balaa ngay am jën di nga daw di nga di di nga lakk ñetti soixante mbaa mbaa mbaa ñeenti soixante doog doog a nappi cela veut dire que jën bi daw na li ko indi mooy pollution pollution moo dàq jën yi fi na ni nii yaa ngi nii mënuñoo dem bi am dara essence bi cher na nga bëgg a daw 4 bidons 5 bidons 6 bidons du 60 litres dem ñëw boo ko defee ñaari yoon kaaya musiba daal na la. te loolu moo fi am pêcherie yëpp moom impact impact euh, économique bu bu metti la pêcherie nag absolument c'est bien sur parce que fii fii boo fi sangoon léegi ngi ay bouton sopp la xale yi léegi te xale yi mënoo leen tere xale yi dañ fi dugg mais buñ fi duggee ay ay ay feebar rek lañu fi jële ay di wokkatoo ko yooyu te loolu yëpp pollution bee ko indi ça c'est l'impact euh, euh, comment dirais sanitaire l'impact social mooy li ma la léegi léegi yow sa jëm bopp mënatoo am dara pêcheur bu fekkee ne da mu ngi dem géej yore yore yore ay mi ay milliers de personnes yoo xam ne ci moom la ñu dépendre ñooñu amatuñu dara parce que moom mii dem amul bu amul famille bi du am bu famille bi amul mbokk yi du ñu am loolu mooy impact social impact social donc ñetti impact yooyu moom mooy impact sanitaire impact social impact économique absolument parce que yaa a un projet de de la dépollution de baie de Hann boo xam ne ça a démarré depuis biñ ko kii ak léegi ça fait trois ans mais jusqu'à présent ça tarde à, à se réaliser on ne sait pas à quel niveau la la on ne pas à mon niveau je ne pas mais en tout cas bañ ko démarrer ak léegi kii na. ça fait bañ ko démarrer ak léegi ça fait une trois ans yoo xam ne dara léegi nag kii bu boobu bu commencé woon xam naa ne ça peut contribuer à la dépollution parce que bu paree woon moom ils vont supprimer tous ces canaux que vous voyez ñuy déverser ci kii bi yooyu moom euh, comme démarrer gul nag. toujours le problème insiste comme d'habitude rek lii ñuy xaar mairie moom xam nga ay moyen ay moyen bu bëriwul mairie li mu mën mooy mu mu mu mooy bale mu set teg fi ay nit ñu koy bale li ko setal mais boo setalee aussi bëccëg bi guddi gi ñu déversé yeneen aussi tu encore aussi le les populations yi am na ñoo xam ne aussi mbalit mi fii lañ koy sali tout mbalit ci ci tefes kenn mësu ko gis mais fii donc lañu la ñu gis ngay turmbal dañu wax a wax ba sonn waaw il faudrait que ñu jël ay mesures yoo xam ne vraiment dañuy bàyyi di tur mbalit mi ci ci ci ci ci tefes gi vraiment aussi la pollution ménagère aussi ça joue te gis nga gis nga ko lii yëpp ay ay pollution ménagère waaw jafe-jafe géej gi moom yéen ñëpp gis ngeen ni moo la yàgg nañ yàgg nañ toog di si jooy te boobu léegi ba tey jii may wax yow dañ siy jooy canal yaa gis boo wàccee géej gi gis nga nu mu saltee canal yi noonu la noonu la bëree gis ngeen ndox rigole waaw tax na léegi napp bi yàqu na carrément boo génnoon nii léegi-léegi nga gis gaalu gaale ndaw yi gaale mbaal dóos jënuy soog a juddu loolu yoon la loolu du yoon te tey jii mënoo dem di xeex ak ñoom wala ngay xuloo ak ñoom loolu mënul nekk même essence suñu président moo ci war a mën a jàppale lu si lu bëri te tey jii géej gi nii bu yàqoo ñu ñëpp la yàqool bu avancé tamit ñu ñëpp la avancé dañuy taxaw di ko joo fu nekk gis nga fii boo génnee li li si ay kondir noonu la bëree tax tefes gi sax mënoo see sangu géej loolu ñaaw na salte waaw boo demee tamit ba paas ba gis nga nu mu mel waaw jën amul jën instant yi mënul am jën amul fenn gis nga nu ñu toogee nii fi ñu toogee fii nii fii la ñuy yenn suba fii la ñuy yenn ngoon gisoo jën jën mënatoo ko gis fenn géej li si nekk si yàq moo bari géej li si nekk si yàq dafa bari carrément te mënoo ko wax te ñun te suñu biir la rek suñu biir la boo waxee ñu ne la waaw géej gi ñu ñoo bokk a bokk ñu ñoo bokk a moom mais géej gi bu yàqee ñun ñun la yàqul fu baaxee tamit ñun la baaxul gars yi dañu naan botey botey botey botey dëgg la nag botey ñu ngi yàq benn boori mais genn wàll yàq gi yëpp suñu biir la ñun waaw.